teewaay bi moo ko waral ndax am na noo xam ne soo ko meloon amaan na kenn du ñëw ci kër Thierno pour ñëw teew fii waaye tey suñuy yaay ñëw nañ Adja Koukou Dia ngi nii suñu yaay la soxna si Xasan dem la mu ngi nii fii la fanaan ak ñun fii la yendu tamit jikko yooyu la nemmeeku ci yow xajja fa dem ñii yaay daayira bi dafa nekk ci tukki waaye su fi neexoon te mu ngi si bu kenn jëriyaa ñu koy ñaanal yàlla te taw fee cëttu bi ma bàyyi Cheikh Baye Mamoun di ñu koy ñaan yàlla yàlla ko yàlla indil tukki ma ba mu ngi seeg jàmm saaliman wa ghaaniman moom mi nga xam ne mooy ndeyu daayira bi mooy ndeyu xamla bi moom it tukki moo tax danga la teew waaye njabootam fi nekk yëpp ñëw leen ma mujja di seex fii la indoom ñun fii la fanaan ànd ak ay sëtam yëpp ñu ñëw loolu dafay wane rek sa taxawaay da nga ca kër ga mais gërëm leen ko soo agenda yaa ngi démb ñëw na fi ci àjjuma bi ànd ak yeneen ci njaboot bi kon daal njaboot bi li ñu nemmeeku ci yow mooy mbëggeel ak yar ak am teggi ak am kóllëre ak tamit mel loxo melokaani cerno moo tax ñoom ñëpp ñu fonk la moo tax ñoom ñëpp ñu bëgg la looloo waral teewaay bi nii kon ñu ngi lay ñaanal yàlla saxal la ci loolu yal na yàlla dëgëral la ci di ñaanal sa am na doole tamit yal na yàlla fay leen ñoom ñëpp taxaw nañ taxawaay ba nga xam ne moo mat te incha allah bu la yàlla fayee say jëf doo sonn ci àddina ndax sa kër sëriñ yaa ngi koy jéem loo te sa yéene ci kër ga. kuy toog ak yow a ku lay déglu rek li nga xam na ko lan cay ñaan ko bu set dégg mooy luy yëkkati kër ga lu koy taxawal kon yàlla yàlla dal laa dëgëral yàlla gën ci waara ci baax bi bu ko defee rek euh, loolu moom laa doon tëjee kàddu yi ndax euh, su fekkee ne yàlla la ñuy wax nañu am ngeen woy teef bu rafet ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa li man kaana yarju llaaha wax ñi nga xam ne yaakaar nañ yàlla tabaaraka wa taala dañ gëm bés ak pénc wal yawmal aaxir bés ci ñu yaakaar fa seen jëf yu baax yi fekk leen fa daf caa teg dégg nga wa zakara llaaha kathiran ak di tudd yàlla tudd bu bëri kon nag wax nañ ci modèle bu mag bi mooy yonent bi sallallaahu alayhi lu lay yéegal ci jikko yonent bi nag moom mooy tudd yàlla tudd yàlla boobu nag mooy tooyal xoli jaam bi mooy yëngal ruuxi jaam bi mooy yëngal dënga da xolam ba mu mën a buur nag jëm ci rangoo takkaay yaa moom mooy takkaay jikko yonent bi gën a kawe kon euh, foog naa li des ci gàmmu gi moom mooy dënga da tudd yàlla bu ko defee nag sikkarkat yi ñu ngi fi leen yëngal tànt bi bu baax a baax waaye Cheikh Habib dafa tàggoo léegi ne dafa bëgg a dem te Cheikh Habib du teew ci jotaay yi te te duñ ko zikarloo ndax dafa nekk ruknan rakiinan dëgëra ci majaalis zikri bokk ci ñi ko daan dëgëra taxawal ci formé ci génération yu bëri bëggloo leen tudd yàlla tabaaraka wa taala kon sëriñ bi lu mu gàtt gàtt rek dëgëra mosal ñu dëgëra dara tëbbee ko dëgëra sikarkat yi bañ mën a tudd yàlla tuddin woo xam ne tuddinu jaam bu ko xam waaye tuddinu jaam boo xam ne bu tuddee yàlla dina mën a maas sama classe bi nga xam ne ñun pour ñu jooy foo mu jël ay yet dóor ñu ko pour ñu mën a jooy pour suñu xol yi mën a yëngatu ñu tudd yàlla tabaraka taala bisimilah sëriñ allez zikar di nga zikar de soo paree euh, yaa cheikh لا إله كل شيء شاهدا بما

الله الله نبي أبلياء طه حققه من لم يكذب يا ربي وجوبي فياثم في المعارف لم ترم فقد قصر الأخطاب أنت الكسعية بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله حلفت يمينا انني لا يهلكني سوى اسد ولست في حال بغيا وقد علم الاقوام اني خفيفه فالوفد حبيب الله الفاتح وما مزها ومامس بشكر يغيب الأقنياء وإن قدوتي بالأنام سادة فلم يست يوم المظآن واقتيا بكير بدوت الدم باي باخي باي دارا glory. wal Bravo! alam paribar amay la ko sëy di feeñu ko yónnee nañ ma Saalum bàyyi bara amay hajjan Quran sëy di kañ ngay ñëw donte kon ma xam ni kon dang ma fekk salam baay bara am naay seyden kon allahu alamu yàlla njiyoon fu ko neex lay denc ci mbootum seydi bara bu juf ne boobu la suñu am de laxasaayu dati gàddu bakko jolof jub ci xolam baay mën boo wàcc kër Samba toog du fóolu sëy ma ngay ñaan ci yàlla ak yónneen di baraxam na atif ban ko fekk kër Samba nan ko aji Abdou Seydi wayna wayal bambu si di baraxam keroog ba mu wàccee biir bambu dal de fetal noonu ye Ibou Diouf ne ramoy ñele ñaamo tuubal sidi bara lange tombi mbal gi jàpp na ñetam leen ma aji ñes bana fi mbër mu ne bara amay naara gannaar ba doon jaay maqaama ibnu mayaaba da si kaamil sidi bara Ibou Diouf ne dañ ko tong tongal daane ko ca mbedd ma naan ko uruj génnal kër gi yow mi seex ci di bar ama laana laawu em na maayaaba mi di noonoo seex yal na lab ci géej gi waylun si di barahamay ñàkki teggin teggi aljana torox na ta marta bay seex gaw na koy dal si di barahamay gii kañ sag bu ku mu tooña ndoxam nañ du forox jàngi foo dayi réer yéen sëriñ ba amay doomab olom bu ko lëg lekke booba yàlla cooy la bàyyi li ñuy jagleel dawul luñ jëf sidi baraham may ku la bañ iboo ngi ci lu mu dëkk moom la bu ñu di ko jàttal sidi baraham may ku bañ bàyyi duñ la nuyu duñ la jox loxo yàlla buñ fa daje kuy bañ ci li baramaay barama barama buñ fa daje bon ma tampon ko bam daanu jaaxaan ibrahima diouf sim na kuy bañ ci li barama la ilaha illallah kii mu Cheikh Baba Diabo Baba Diabo édition 2021 dañ ko doon suivre ànd ak ci barab bi mu sa média ki di diggante Cheikh Baye Ngom teewaay Cheikh Mouhamed Ndaw ak mbooloo mi yeneen programme ci kanam ay 16h jàpp 17h da ngeen am pause première pierre bâtiment bi nga xam ne moom la Serigne Mboup bu CCBM euh, war a teg fële ca euh, école Haji Abdoulaye Niass franco arabe El Hadj Abdoulaye Niass Al Kabir ca Saam incha allah teewaayu Cheikh Mouhamad ak kilifa yi Medina yi. incha allah di ngeen ko am en exclusivité en direct ci Barham Universel Média à partir de 16h incha allah ñu jox rendez-vous si yeneen programme ci pays bi leen waa asalaamualeykum wa rahmatullah